jërëjëf bokk internet yu Dakar Buzz ñi ngi leen di nuyu baax di leen siyaare eh, di sant yàlla ci ni ngeen di ànd ak ci lépp lu actualité rek Dakar Buzz di ci ànd ak yéen muy côté bu ne rek gis nañ eh, commentaire yi ni ngeen ñu ñaanale muy côté social bi muy lépp loo xam ne rek Dakar Buzz mi ngi ci koy dugal rek ngeen ci ànd ak moom ñu leen di gërëm bu baax di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan yàlla defal ñu jiitu yàlla yërëm leen te jégal leen ñi fi des te tabat yàlla may leen ak wér eh, te defal nu sutura ak xéewal te dàq seytaane sunu biir te bàyyi noog sunum xel ba li dugg ci sunu biir réew mi ba dinu salfaañe ba kenn ku nekk ngay déggaloo daawul dégg mu jóge fi ndax wax naa ko bu njëkk da nga daan yor ginaar sax ci koñ bëgg ku la ko reyal ngay wër koñub lëmb doom ku la ko rendil ba koo jub mu ne man néegumaa rey néegumaa rendi léegi nag waxatun waxi ginaar ay nit ngay dégg waxatun waxi jam naa ko waxu xaañ naa ko waxu rendi naa ko ngay dégg mu diwa rendi dit diwa muy loo xam ne daal xamuñu ko woon te bokkuloon ci suñu culture ñu ngi ñaan nag li ko dugal ci suñu réew mi suñu borom kàttanandu ba mu génnaat fee ndax bokkul ci ñun te xamuñu ko ndax jaboot jàmm rek moo ko ji tey nag euh, ñu ñëw toog ak kenn koo xam ne am na coow lu amoon ca Caaroy Géej muy coow loo xam ne yaakaar naa ni dikk bépp ak ci doon wax muy ñaari xale yi nga xam ne jote woon nañu ci tefes gi ba kenn ki di kenn ki keneen ki ci des tam bi mu jógee tam pour daw nit ñi dàq ko jàpp ko moom it daal koy dóor ba ca ñaari jaari jaare génn bakkanam ñàkk bakkanam muy loo xam ne gis ngeen ko muy lu jaaxal ñëpp àdduna di ci wax côté bi nga xam ne moom la ñu rendi seen doom jëli nañ leen ba jël papa ji rawaan mu wax lim ci war a wax lépp beneen bi ci des nag mooy ki nga xam ne tam moom moo rendi woon ah, ba après ñu jàpp ko dóor ko ba mu génn àdduna ay bokkam la ñu toogal ñoom it ñu wax parce que li may wax Dakar Buzz rek bu mbir amee day xool ñaari ñi ko séq mu waxtaan ci ak ñoom mais li ci jiitu mooy ñi ngi masawu ñaar ñëpp di ñaan suñu borom yërëm leen te jéggal leen wooy fal su seen kaw te xaar leen àjjana te xam ni ñoo bokk réew mi boo ma gaañee gaañ nga sa bopp su ma la gaañee gaañ naa sama bopp ko ñi ngi ñaan fan leen denc yàlla yërëm leen te jéggal leen ma waxtaan ki nga xam ne rakku papa yi eh, ki génn àdduna la te moom it tund dóor ko ba mu génn àdduna ma laaj ko nu mu tudd ak mbir bi nan lañ ko yëgee ak nan la seen kaw maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay di la ziar baax. tur bi nan la. Modou Samba. Modou Samb lan nga ci papa yi ci Cheikh mi nga xam ne moom lan ni moo faat xale bi ginnaaw bi ñu door ko moom génn àdduna. man papaam laa rek papaam laa. Hmm. mbir mi. Euh, mbir mi dafa mel ni mi ngi xew mercredi ci ci ngoon daanaka sax ci côté bële mbokk caaro yi laa njëkk a gis satu yi deewu xale bi ñu koy commenté nii ci tuuti la mbokk yi woon nañu ki xew-xew bi foofu. xew caaro yi Baye Cheikh Sambara muy sama doom bi sama doom mag bi noonu lañ ko yëgee. Baye Cheikh Samb euh, dëkkul caaro yi lan moo ko indi woon caaro yi liggéey si la woon wala ak ci wan moment la ñëw caaro yi. waaw loolu aussi lu jar a leeral la ndax comme jamono fi mu toll ak exode rural bi ñaare ku ay études supérieures génnewul walla nga dem jàngi métier da ngay di. daani doole ndax jamono moo toll foofu sunu doom ji aussi loolu moo ko génne woon ca dëkk ba mu dëkk juddoo fa cosaanoo fa ñun ñëpp ñu juddoo fa cosaanoo fa mu tudd Touba Merina muy dëkk boo xam ne maanaam aw tund la tund yu moo tudd Njëgij sëñ Fallou moo ko sanc en 1948 yàlla dogal it ba fa sëñ Fallou tegee ay néegam sama maam bu góor mooy ki fa njëkk dëkk donc nag balaa ñuy dugg ci waxtaan wi di leeral day jar ñu nuyu mbokk jullit yi taalibe yi ak famille bi yëpp nu yoon nag moom mu mënu koo tàmbali te jiitalu ci sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal xalifa sëñ Fallou muy sëñ Abo Baraka mu yàgg fi lool te wér suñ jógee nag nuyu nuyu sunu wasila di boroom dëkk ba di Touba Merina ñu koy wax sëriñ Mouhamadou Bachir na sëñ Fallou di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool te wér di nuyu sëñ Moustapha Mbacké aussi moom mi nekk maire commune ba ak ay rakkam ak i njabootam yëpp ginnaaw ba ñu jógee ci loolu juste pour leeral mbiru Baye Cheikh bi li ma wax rek exode rural bi mooy tax nit ñi ku ne génn fa nga nekkoon di daani doole ku ci ay étude génn wut wala nga dem jàngi métier ñaar dangay génn dem daanu sa doole xale bi lool moo ko yóbbu lompul maanaam xaw naa ci dégg version yoo xaw a bëri mais bi ci wóor daal mooy xale bi Touba Mbirina la juddoo màgge fa. ñu yàlla mu toll ci ñaataat. waaw 19 ans la am ndax 2005 la juddu. kon Fass booy bi ñëw fa la dëkk dëkkul Fass Boy. lu jaral leeral a ngi noonu. ndax lu tax mu jar a leeral géej géeju Sénégal la te dafa yaatu jamono yooyu xewoon romboon am na yu fi xewoon ay problème yu faas boo yëg tel tel muy ay entre mbokk lébu nu nit di xëyee di dem daani fenn doole xale bi loolu moo ko yóbbu lompul mu duggee ci gaal gi lompul ñëw fii caaroy géej man sax yëguma woon ne mi ngi fi te xew-xew bi amee laa yëg ne mi ngi fi donc liggéey rek ku fi indi woon bu dee de saa moom dara boolewu ko nii Fass booy nii Lompal gi mu jógee liggéey rek ko fa indi woon ci gaal googu donc dana jar aussi ñu woote apaisement pour mbokki caaro yeeg Fass Boy lébu yi bokk yëpp te bokku géej gi fu jën am comme nun koy defee ci àdduna bu ñax manqué fii cultivateurs yi wala euh, sàmm yi dañuy dem di uti feneen noonu la mel ci géej fu jën am ñëpp dañuy jóge fii dem fële lool xëy na moo indi ñeefee moom it comme dafa demoon di daani dool te Lompal lay far di dem gaal googu la dugg ñëw fi di fi liggéey ba xew-xew am mais sinon dëkkut Fass booy moom ci boppam juróom-ñaari maamam kenn nekku ci ku xam ndox loolu daal mooy li ci leer. moom bi mu ñëwee caaro yi dafa sànc dëkk dëkk luy fa nekk dëkk fa wala ci ban anam la nekkee woon caaro yi. gaal gi mu àndal ay nit ñoo ko fi indi dana am capitaine dana am du comme xaw ma géej du ma ci mën a sori quoi mais au moins gaal buy ñëw dina am capitaine dina am ñu ko indi ñooñu la dëkkandoo la waaye comme man musuma dem caaro yi xaw ma woon sax mi ngi fi. foofu daal laaj yi mën a yem parce que information boobu laaj ci ko li jaaxal ñëpp mooy ñëpp ñi nekk ci tund Caaroy boo waxee ñu ne ma xamuñu Baye Cheikh Samb xamuñu ko ci tund bi wax ràññewuñ ko fenn ba papay xale bi rawaan ki nga xam ne moom la moom la rey doom nee na mosu koo gis xamu ko euh, moo jaaxal ñu bari euh, ba euh, li ci faat bi am yéen nan ngeen yégée ne ak faat am na te seen doom moo faat. waaw comme ni ma ko doon waxee ci njëlbeen gi. bi dee gi amee ñun xale caare bi sax lañ njëkk a gis balaa ñuy xam ne sun mbokk moo nekk ci loolu xëy na ñam moolu mbokk ci moolam la dëkkaloon ñooñu it ba looloo xewee aussi pour apaisement ak tension boo amee ku ne jóge fenn wax xëy na dinañ garder seen bopp duñ génn xëy na sax moo tax xamuñu ñu mu àndal d'après les infos gaal gi sax dafa jotut yàgg foofu ay un mois la fa def wala genre. d'accord bi loolu amee ngeen dégg ni euh, loolu am na faatu ni ngeen faatu xale bee ngeen njëkk a yëg ci ban moment ngeen yëg ni tam euh, Baye Cheikh tam mi faat faat na nan waaw balaa muy mat ay trent minutes rek mbokk yi woote na ne xew-xew bi xew caaree noonu Baye Cheikh Samb la muy mercredi presque ci guddi rek man nag bu fekkee jeudi dimanche jeudi euh, jeudi ci suba teel vendredi dimanche yaakaar naa affaire bi mercredi jeudi la. su ma juumul parce que vendredi ñun lan dem ci koor bi Kancaaro yi mooy euh, hôpital bi nag Kancaaro yi man fa demee nag fekk ko anam bi mu faatoo noonu mu faatoo nag noonu la fanaane woon moom daanaka sax muuruñu ko woon maa dem ba caaro yi wut fa lu ko sàng pour suturaal ko noonu daanaka neen bi moom noonu la ko ñëwee noonu la fanaane aussi ci morgue bi. ba tegoon naan amul dara lu teg ci kawam. comme xew-xew bi mu xewee rek mbubb mi summeeku na noonu la fanaane woon mais xëy na moom bi ma xëyee dem fa man maa wuti lu ma ko muuree. Mm-hmm. d'accord ci ban anam nga ko gis comme yow bi nga demee yaa ko njëkk a gis mbokk yi defar ko ci ban anam nga fekkee Baye Cheikh Samb. waaw loolu moom daanaka rapport autopsie bi leeral na ko dee yu mel noonu yoo xam ne si moom daanaka population ñooy ñëw daal sa kaw moom daanaka sax du jar di nekk di yaatalaat parce que day gën a rek xol yi gën a tàng te du ko jar daal fii ne apaisement ak jàmm rek. moom la ñuy woote daal. Mhm. d'accord Baye Cheikh Samb tey su ma ko doon dikkiral ci xale yi ban xale la ah, ba tax loolu daal ko lu ko dugg la wala lan la ci ban xale la. waaw nu ñuy wax daal mooy maanaam ku xam sa yaay xam sa baay boo waree yaru xam nga boo waree mel ne ne nit xam nga kër gëm juddoo muy ay mbokkam daanaka ay xarlan du nekkuñu nit ñuy siggi sa xool nit. da ci man mi sax wax dëgg yàlla lii may def mooy premier exercice ci exercice ci may nar a wax ci loo xam ne par exemple àdduna da lay seetaan ci yar daal ak kersa lan ko xamee tund yi di yëpp ku dib njëgëj njëgëj yar jàng bari xam-xam nangoo liggéey lan la xamee donc loolu rek lan xam ci àll bi bi loolu amee est ce que du woon risque yéen it ngeen ñëw jaaro yi pour daje fa ak mbokk yi ki nga xam ne moom la ñu faat nekkul risque ci yéen. déedéet wax dëgg yàlla dara métti ci woon nag parce comme lay xew moom xas na xew ñu ngi profité aussi ci occasion di jaale waale suñu mbokki caare géej yëpp di leen ma masawu ndax métti bi ci ñaar ñëpp la mette papa yi xale bi nekk caaro yi man bi ma seetaanee waaw vidéo bi nga def ak moom rek daanaka it ku jur rek yërëm. la muy yëg moom nga yëg ban fa dajee di wax dëgg yàlla daje nañ fa ay ay jullit ay nit ñu nangu nogal ndax gannaaw ba mbir ma xewee ban boole ñaari xale yi yóbbu ca morgo ba ñun ñi demoon di ko taxaw daanaka ban demee ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax ñaari koor yi ñoo bokk benn koor bi yaar buñ leen dugal yóbbu leen ci mercredi bi ci euh, vendredi bi seetewoo pour ñu def autopsie bi mais comme administration moom bu ñu jullee àjjuma ba lu ci topp rek dañuy daal di arrêté foofu lañ leen bayoon ba lëndi lan mottali affaire yi. finalement jot ngeen ñaari koor yëpp ba kenn ku nekk denc bosam. waaw ci lëndi lan mujj jot ñaari koor yëpp. ginnaaw bi autopsie bi rombé réquisition bi jóge woon gendarmerie Thiaroye ñu delluwaat fa ñu def ci liñ ci war a def ñu delluwaat ci procureur aussi mu def ci lim mu a def ñu ñëw mairie aussi pour wut certificat bi. ci loon ko delloowaat aussi ci morgo bi pour ñuy libérer ñu corps yi. nan la ko waa dëkk bi doon dundee parce que waa njëgën yi ku dégg sa doom jigéen jigéen ku dégg sa doom faat nañ ko ca Ndakaaru te mën a koo yegg ca ña ko faat pour joxalante ñoom ay kàddu bi biñ ko yëgee nan la lañ ci ban seen réaction lan la woon. waaw daanaka loolu moo waral jotaay bi pour leeral ci côté bu mu mën di doon rek ñu xam ne moom liy xew xew na ba pare. te nit bu juddu rek suñ borom defal na la kañ ngay juddu kañ ngay dee ak sa wërsëg ak na ngay deewee loolu moo tax toujours nit di ñaan dee ci dee gu rafet ak mujj gu rafet sinon information yi ma man comme maa ngi fii te demuma daanaka daal lu dul mbokk yi ngay jot mu metti ci ñoom nga xam ne li ñuy dund metti na rek nga ci mën a xam waaye nag man jotuma woon a àgg dëkk ba dëgg yàlla. yaay Baye Cheikh ñu ko doon dundee comme. metti rek. comme ni xale caaroy bu si yaayam di ko dunde metti rek ku jur doom yërëm doom moom boo ko juree toujours bu ñu ñaan sax ci buñ koy tudd da naan na dund ba fekkee jariñam mu nag xale boo xam ne dix-neuf la am ci ñaari côté yëpp ku ne nga dee dee bi nga deewee day metti moom lu ci coïncidence mooy ñoom ñaar ñoo bokk tur ñoo bokk même année ñoo bokk génnandoo àdduna muy loolu du doy waar loo xam itam euh, xaw na jaaxal ñu bari nga xam ne suñu borom. waaw loolu moom lu ci wax toujours mooy ndogalu suñu borom. dana toujours yàlla day jël lëndëm làq ci leer jël leer làq ci lëndëm suñu borom rek a xam lu tax ñu juddoondoo maase ci bekk bokk benn at bokk tur daanak sant moo leen taxale daje caaro yi bala fa war a xew xew fa ba ñoom ñaar ñu ñàkkee seen bakkan aussi ci anam bi ko ñàkkee loolu lépp mbiru suñu borom la dañ koy delloo ci loxo suñu borom rek. muy lu doy baar soo ko déggul fii dégg ko feneen bu njëkk da nga daan dégg jàmm mais léegi ren di ngay dégg dafa am lu dugg ci dëkk bi wala bopp yi moo jaxasoo wala seytaane wala lan la. waaw loolu balaa ñuy ak wax ci loolu sax li ñu njëkk wax mooy yar gi comme nun koy waxee ci dégg ci benn borom xam bu ñuy wax sëñ Samba bu njëkk dañ boo fekkee xaru jàmbur moo laxasu sax ba nar a dee sañ nga ko rende ndax bañ mu medd loolu léegi boo ko defee ñu yóbbu la police noonu la mel ci njaboot gi si bu njëkk. ñun am nañ chance suñ génnoon gis ku nuroog suñ waajur sax bu naroon a def dara wala dañuy daw léegi nag presque loolu amatul doo xam nag mujj jamono la doo xam loonu dajel la parce que fii ne moom loolu li ngay dégg lépp daawoo ko dégg lu nekk mooy xew ci àdduna di ñaan daal dal di ñaan yàlla aussi def wàcc jàmm ci réew mi te li ñëw xamuñu balaa la xamuñu loolu ne daal suñu borom yamala ko daal lañ ci wax. d'accord yan souvenir nga am ci Baye Cheikh Samb comme sa doom la. waaw man nag gannaaw daanaka a jàng moo ma jëlee dëkk ba ma ñëw nekk fii presque fi laa féete ak sama lépp nekkutoon koo xam ne si dañuy soo trop di nga ñëw rek xam ne kii sa doom la parce que am naa ay jarbaat axan yoo xam ne si samay mag yu jigéen yi leen jur daanaka doo leen miin ndax jamono moo toll foo xam ne jabar yëpp a tasaaroo ku ne yaa ngi dem fenn di. daan doole di yar njaboot gala suñu borom dénk loolu moo tax man jotuma ko miin trop à part ay images yi ak gisante ziar yu ndaw rek doo mën a xam mais daal li nga mën a xam ci ay mbokkam daal ak tund wu yëpp daal mooy nit ñu am jom lan nit ñu ragal tooñ lan nit ñu nangoo liggéey lan. ndax moom mooy taw papaam. ci côté euh, papaam daa yor ñaari soxna ñaareel bi mooy taw waaw. mooy taw ci ñaareel bi. waaw. parce que kee tam moom mooy taw ci papaam. waaw loolu yépp ba tey coïncidence yu daje waat la rek daje dajewaat la xam nga lu ñuy wax rek hasard amut yàlla muy def daal ñu bokk juddu bokk tur ku ne ci ñoom ñu tuddee sa maam ba sant yi moo leen taxale ñu dajewaat noonu ba jote te ñoom ñaar liñ jote ñoom ñaar kese ko mën a wax te ñoom ña ko war a wax aussi sun borom moom na leen yàlla daal moo xam lu mu daje looloo lépp moo ci defi mbiram daal ñun foofu rek wax da yàlla lañ ci yem lan ngay donte ñàkk ngeen ndax li dal ci côté ñee moo dal seen côté tam lan ngay masawu tam ñee comme ñoom nin la masawoo parce que tam bi ma jëlee papaam daf ne maa ngi masawu tam ñee comme nin amee lu leen métti ndax euh, moom it dem na ci anam bu métti boo ko déggee chef de quartier bi sax nee na jéem naa ko couvrir ba sonn jéem naa ko làq mais xale yi di ma sànni xeer di ma dóor ba tuur ko essence moom paa bi ba daanaka mënoon na cee jëlee ay gaañu gaañu finalement ci la génn ci lañ door mën a jot ci xale bi tam muy yu métti yoo xam ni rek donte ñoom ñaar ñëpp ñàkk nañ ñoom ñaar ñëpp la méttee itam lan ngay dalal nañu seen xel ñuy defalee leen. waaw vidéo yooyu man aussi moom laa njëkk seetaan li ñuy wax daal te man ci gàttal mooy ndax ci gannaaw bi sax dëgg yàlla ba xew-xew bi amee teraanga dugg na ci diggante bi ndax mbokk caare yéen ñëwoon ci morgue bi di seet seen kii man falaa leen fekk waaye ban xasee ñëw ba nuyoo rek. dëgg yàlla jàmm lan fa fekk ñu fekk fa ñu jullite muy mbokk caara yi ña ñëwoon di taxaw xale bi seen néew bi nee naa la ba ñu jógee ca morgo ba ñaari néew yi ñoo bokk benn corbillard bu bi jógewut Touba Mérina jógewut njëgee caaro yi la jógee su leen neexoon ñu jël benn cin moom ak seen naxar yóbbu ko bàyyi mais ñoo bokk lépp gis nga ban dajee ca morgo ba ba nin jógewaatee sétawoo ci autopsie bi ña fa daje woon ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. parce que loolu gis naa ko parce que man ñëw naa ci morgue ba xam nga fekk naa la ci morgue ba mais mënoo xàmmee ñii ñoo moom néew bi wala ñii ñoom ñëpp da ngay jàpp ni ñoom ñëpp ñoo moom te ñoom sax ñoo moom néew bi mais mënoo koo ràññee loolu yow yaa ma xàmmeeku xamal ma ni ma man maay wéyjuru ki génn àdduna te dëkk ci beneen côté bi ma gis affinité boobu ak ak gëm googu tey donte métti na mais kenn ku ne am nga gëm-gëm goo xam ne yàlla dogal li waaw noonu la ay jullit lan ku ci côté ba nga nekk rek ñu tarbiye la ñu nekk ay mbokki taalibe comme ni ma la ko waxoon rek ci xale bi fa mu jógee famille ba yëpp ay nit ñu lewat lan ñun aussi waa Kër Sëñ Fall lan waa Kër Sëñ Fall ku leen dégg xam ne boo nee salaamaaleykum rek jàmm ak teraanga la ñu njëkk a yow. donc ba ni damit ñun ci nit ñu yare tarbiyaa ñu rek lañ yóbboo noonu fekk fa it wax dëgg yàlla suñu morom ci suñuy nawle ci ci yar lépp donc ñoo bokk lépp ba ni nga ko waxee. balaa nga may fekk ci morgue bi sax fokk na sa ay yeneen mbokk sit internet yu bëri woo nan ma pour wax ci mais munuma woon rek ci tàng-tàng bi comme yaay nekk di lijjanti dossier yeeg pour libérer corps bi nga dugg ci yooyu moo ko waral sax andi ko ba tey ji mais wax dëgg yàlla mbokk caara yi moom ñan fa dajeel ñin gis ak ñin gisagut ñëpp ñu ngi leen di masawu di bokk ak ñoom naxar bi wax dëgg yàlla. d'accord Baye Cheikh Sam jot am soxna. deewul deret jotoon am sax dix ñoom ñaar kenn jot ci ñoom ñaar ñëpp dix na wala am nga sax léegi la waaye bu njëkk daanaka xale dix na waa ci jàng la tolloon adduna moo def léegi xale yëpp génn di liggéey mais daanaka wax dëgg yàlla bu njëkk moom dix na waa boo ko am doo xamoo sax génn te ñun mbokk morit woo demul màggal yi wala nga dem gàmm daanaka xamoo woon génn léegi la loola xew rek hmm. ban message ngay wax ci jeunes yi parce que tam loolu boo ko déggul caare dégg ko yaa ngi koy dégg feneen ñu xam ne àdduna euh, euh, lépp ci ak dal lay mujj ñu dal yaraat sunu bopp bañ ji doxantu ay ngànnaay bañ ji taxaw taxawaayu yàlla di jéem jël ay paaka parce que yor paaka xelam mi ngi ci faat mbaa jam te boobu même boo rendiwul mën ngaa jam mu dee ñu xam ni euh, xale dafay dafay dafay dal te xam ne yar mooy lépp solo ci doomu aadama. waaw loolu moom mooy luñ commencé woon yar bi mi ngi tàmbalee ci xale bi ñu ko yare ci biir kër gi ba mu dem ca école ba walla daara ja daanaka ni mu mel mooy feeñ ci mbedd mi lii xew nag loolu mën a wax rek daanaka axiru zaman la ndax ñun ñii leen mag suñu borom dimbale ñu ba ñoom daanaka ni leen yàlla bind nii ñun muccoon nañ ci loolu li ñu ñaan daal mooy jàmm li xew bu fekkee balaa la ñu ñaan suñu borom yamala ko fi te fi jàmm ndax senegal moom jàmm kese xaj ndax fii kese ngay gis nit dugg ci sa kër sax sàcc wala nangam bu buñ koy dóor bu nit yëkkatee birig yow mi sàcc yaay njëkk a yëkkati say loxo ne bu leen ko rey donc jàmm daal lan xame Sénégal moom lani ñu ñaan dëgg nag gis nañ depuis sax événement wu politique yi fi jàlloon muy 21 mars ba fii gis nañ ci ndaw yi ay agressivité nun mel noo xam ne xamuñu ko woon ci Sénégal lool presque ci dëkk ñag yi nga ko doon déggee tout yaa ngi koy commencé di gis muy loo xam ne wax dëgg yàlla Sénégal moom xamuñu loolu du sunu baax du sunu valeur du sunu jikko ñaan daal sunu borom mu yamal ak fi daal te defaat Sénégal yëpp jàmm. jërëjëf ñu ngi lay masawu di la jaal di jaal tam mbokki caaroy géej gi di ñaan ñoom ñëpp fu nu jëm gënal leen suñu jóge xale bi Baye Cheikh denc nañ ko Touba. waaw denc nañ ko Touba alterné ci ngoon entre ay 18 heures 19 heures ñu ngi profité aussi jaalewaale famille bi yëpp. yëpp ku sant Sàmb rek foo mën a nekk ñu ngi lay jox sa loxo di la jaal xale bi di bokk ak yow aussi métit bi waa caari géej it aussi ñu ngi leen di nuyu encore une fois di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñun dajaloon ci morgue yëpp nijaayu xale bi jot naa ko fa ràññee ak ay ñu bokk ak papam ak imam bi wax caaroy ña fa nekk yëpp wax dëgg yàlla te woote jaam ak salaam rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu wax dëgg yàlla fi mu jaar yëpp aussi ci administration ñu soxla woon fa ay papier commandant gendarmerie Thiaroye bi procureur bu Pikine Guédiawaye bi maire Grand Yoff ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan aussi yàlla def ci réew mi jàmm di nuyu boo bépp njëgëj njëgëj fu njëgëj njëgëj nekk rek ñu ngi la fekk di la jox sa loxo di la nuyu di la jaar ñaan yàlla def ci réew mi jàmm ci barke kasu rajo bii ñu dugg ci weeru rajab bi loolu daal la ñuy ñaanal yàlla. jërëjëf mooy kàddu yi jël si woon fii ci li nga xam ne mooy xale bi eh, Baye Cheikh Samb ay waajuram ginnaaw bi ñu demee caaro yi tam njëkke fa masawu leen jaale leen tey ñaan suñu borom yërëm leen ñoom ñëpp te jéggal leen eh, ñu ngi ñaan yàlla yaatal seen i bàmmeel ak Dakar Buzz li may wax rek bu tàbbee ci benn mbir dafay équilibré dana xool ñi nga xam ne ñoo ko bokk mu dem waxtaan ak ñoom bu dee lu ñu war a masaw ma masaw leen bu dee lu ñu war a leeral ma leeral ko kon xale bi dëkkul Fass Boy xale bi ñu bari dañoo jàppoon ne Fass Boy la dëkk mais dëkku fa dégg ngeen di ci papaam leeral lépp dañ koy bàyyi mu tàggatoo ah, internet yi. waaw tàggatoo bi mooy di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp rek di ñaanal Sénégal yal na fi yàlla def jàmm daanaka jërëjëf. jërëjëf kon.